waaw waaw waaw waaw deuxième combat ngay noonu ci biir géew bi deuxième combat de la soirée moom ngay noonu ci biir géew bi Ndangaan Fallou Balde bu Ndangaan moom war a jàkkaarloo kenn war a jàkkaarloo Boy Jaxaw benn braak ci benn braak mbooloo ndeysaan Fallou Balde si côté moo ko toxatee Fallou Balde si côté moo ko toxatee Fallou Balde bu Ndangaan di Ndangaan di Ndangaan di Ndangaan wax muy ndeysaan mi ngi na de waaw waaw góor yi ndeysaan ndeysaan ñoom moom lañu supporté Fallou Balde Boy Joola bëri na léegi daal Boy Joola bëri na léegi daal rek mooy Jolaaf bu jëndee moo am ndam dañ daan parce que ñee dañ ko porté baaraam bi moo c'est euh, pas comment c'est blessé c'est blessé au doigt Jolaaf kon kon dañu jël ci doigt jox ko jol euh, jox ko kii mooy Jolaaf daa ngi ci septième combat de la soirée waaw waaw boo jaxaw moo ñu woon noonu boo jaxaw moo ñu woon ginnaaw noonu Baldé Baldé bu 50 moo jàkkaarloo ñun face à Boy Diakhao. Boy Diakhao moo ñëwoon ginnaaw. Fade Balde bu Senghane moo jàkkaarloo. moom la jàkkaarloo. la fa demee. Samba Koyaan bee ñëwoon ginnaaw. waaw waaw. waaye nee naa la tey fa mu bàyyeekoo. Bandem Bandem bukan berat Yang Yang berat Ah, kita pada Wow wow Wow pada pada bisa kan kota boleh cakap bukan negara. Kita kan tegar. 2 Kebeul Teuz Keum Vision mi ngi noonu jël ko mi ngi noonu waaw waaw Kebeul mooy jaxaw force nekk li kii benn Black Molo bëri na bëri bi daan na jël bu dee jël bu leer benn wérante jël ko jël ko mi ngi noonu mi ngi noonu mooy benn Black jëmbal Malika seen doom mi ngi noonu taxaw vainqueur de Pape Baldé bu 50 waaw waaw mi ngi noonu boobu mooy septième de la soirée sixième journée de la saison 2024 2025 tey la tey mercredi 7 novembre 2024 ci l'arène nationale le promoteur Amadia à la tête de la structure à déposition organisée Pape Baldé bu 50 bëre na ba dee waaye booy taxaw benn bras daan na ko